di jàpp ne euh, li nga xam ne comité organisation bi yëkkati nekk gannaaw ba mu gërëmee service technique yi fi nekk yëpp si ni ñu taxawee woon daaw li ñu fi yëkkati te mu gën a fës euh, benn bi si wàllu sécurité bi dañu ne rek ñu gën a xool laissez-passer yi gàllankoor yi muy jur ndax bu ñu joxee nit ñi laissez-passer yi bu ñu demee ba cérémonie officielle bi dañu doon dem ba gis ne dina am ay kilifa yoo xam bu ñu ñëwee ak seen laissez-passer yenn euh, force sécurité yi comme ñoom dañuy ñëw rek pour événement bi dëkkun ñoog ñoom duñu leen xàmmee duñu mën a ràññ ñu ne xool il faut ñu xoolaat loolu loolu ñu gën leen ci euh, comité d'organisation gën ci liggéey ak force sécurité yi ba nga xam ne loolu dinañu wàññi jafe-jafe bi euh, lu gën a lu gën a baax beneen mbir mi ñu yëkkati mooy si autoroute Ila Touba bi autoroute moom fu ñu ko teg rek pour gaawaay la te gaawaay bi ñëpp xam nañ ko donc bu ñu demee ba jàpp ne euh, si circulation bi dafay mel ne dafa am loo xam ne dafay yeex donc xam naa bu oto yi di stationné war a fay foofu la yeexaay bi di nekk donc liggéey bi war nañ ko gën a yokk foofu pour que ñu xool lan mooy gàllankoor bi ñu yëkkati ko bu ko defee loolu gën a gën a gën a gën a jumtu. xëy li comité bi yëkkati. mooy yenn quartier yi nga xam ne wër na euh, pencu sëñ Fallou defe naa foofu la xayraatu ba xayraat yooyu euh, quartier yooyu nga xam ne jigéen na fi nga xam ne fa la ñuy cérémonie bi fa lay ëppee fa la nit ñi di ëppee que ndox mi quand ni mu doon euh, xaw a manqué problème mu pression bi que ñu ñu gën si xool nga xam ne bu fekkee lu loo xam ne mënuñu ko mënuñu si jublu si si fan yi loolu ñu teel koo jël matuwaay ba nga xam ne camion citerne yi dinañ mën a ñëw euh, pallier pallier lool loolu aussi defe naa dinañ si def sous préfet xam naa dinañ fay euh, bu baax si loolu ak comité organisation bi ak mairie bi bu ko defee ak waa hydraulique bu ko defee problème mu ndox boobu ñu mën ko régler ndax comme ni moo waxee woon sànq am na problème yoo xam ne si secteur la mais yooyu yëpp dañuy ñëw fekk si santé bi quoi parce que bu ñu amee jafe-jafe ndox fenn rek problème hygiène commencé ñëw et là day répercuter ci problème santé euh, yi ñu yi ñu yi ñu wax sànq euh, beneen euh, mbir mi mooy wàllu wàllu eaux et yëkkati nañ ko sànq comité bi rafetlu na ni eaux et di taxawee mais ñaanoon nañu pour li gën a yombal mooy pour éviter distance yeeg yooyu que bu ñu mënoon autorisation yi ñu mën ko dem di ko jëlee côté Linguère loolu aussi mënu si prononcé wu mais dinañ ko jël rek ñu eggee ko bu fekkee euh, ministre bi dina mën a jël matuwaay mu nekk euh, mesure bu ñuy lever rek pour événement bi moom dina xam ban taxawaay la si war a am bu fekkee techniquement nag dafa nekk loo xam ne day indi gàllankoor bu bu bu metti loolu xam naa ne comité bi buñ ko ko xamalee moom si boppam sax du dem euh, di ànd ak loo xam ne day indi day indi gàllankoor ñu ngi leen di ci sant bu baax a baax di leen gërëm xam naa ne kàddu yi sax daanaka du mën a du mën a gudd waaye li ñu ci jublu rek gannaaw ci ndigalul Cheikh Abdoul Fatah bi nga xam ne moom la fi Serigne Xabaat mi toogal mooy mu jottali nag ak cant akum nuyoo ñi nga xam ne ñoo waral ñoo ñoo ñoo ñoo ñoo jiite bi tàmbalee ko ci sous-préfet ak ñi nga xam ne ñoom la àndal muy sous-préfet ak mboolem service yi nga xam ne teew nañ fi muy nuyoo boo xam ne nag daf koy teg ci loxoom kilifa barab bi li nga xam ne moo ñu fi dalal di Cheikh Abdou Lahad Ka nga xam ne itam taxawaayam ci dëkk bi rawatina taxawaayam ci màggal gi at mu jot mbooloo mi dañ koy rafetlu li mu li mu mën ak li mënu lépp mi ngi ko ci def kon ci ci loxoom la ñuy teg nuyoo boobu mu jottali ko gan yi nga xam ne ay ganam lay nga xam ne moom moo leen moo leen moo leen dalal ci turu Serigne Abdou Fatah mu tegal ñu ko ci loxo préfet ak sous préfet service yi waaye préfet jottali ñu ko ca ministre de ak nuyoo ak cant mu jottali ñu ko itam ba ca président de la république mi nga xam ne moom ngeen fii teewal sëriñ baa ngi sant ci li nga xam ne weesu nag muy at yi weesu bu ne xam ne ne matale moom yàlla rek moo ko def waaye nag yéen a ngi def seen kem kattan kon sëriñ baa ngi sant ci li weesu di ñaan li nga xam ne moom lañu fi jublu itam yéene yi nga xam ne am nañ ko fi ak yi nga xam ne waxtaane nañ ko fi ngir bëgg koo def sunu borom kattan nañ nu ba ni nga xam ne am nañ yéene defe ko noonu nu defe ko noonu te yàlla may ñu teew ak at yu bari lool te ànd ak jàmm salaam te nga xam ne li nga xam ne moo ci di ay di ay di ay ngërëm yërmande di ci xéewal di ci barke sunu borom defal na ko. di xam leen ne itam rajo bi yaa di def moom itam incha allahu taala danañ ko tàmbali ñaari fan ci weer wi di ñëw bu buñ demee ba ci juróom-ñeenti fan ya moom itam danañ am danañ ko defaat kër Sëñ Ousmane Moussa lañ koy tàmbalee ngir rek fedd liwaat kóllëre ak yeesalaat diggante yu rafet yi nga xam ne moo doxoon ci diggante Cheikh Mouhamadul ak ñi nga xam ne moo leen jaboote woon ñi nga xam ne ñoo doonoon ay bokkam ñi nga xam ne ñoo doonoon jabootu lislaam gi yëpp rawatina kër yi Seexul Xadim radiyallaahu anhu yi nga xam ne fu ci nekk am na fa cër boo xam ne kenn naatable wu ko bu ko defee bu ñu demee ba ca fukki fan ak juróom-benn itam ñu dem ca kër Serigne kër Serigne Ousmane Bousso kër Serigne eh, Thierno jaw ak kër Serigne eh, njabootu Serigne Ibrahima Ndiaye gépp ñu ànd def fa jataay yooyu ren itam bis bu mag bi conférence bu mag bu sët yi ñu ngi ko tuddee Serigne Massamba Diop Samb nga xam ne moom itam ku ne ku nekk xam na taxawaayam ci Cheikhul Khadim radiyallahu anhu waaye doomam ju tedd ja ma eh, Massamba Diop ku ne xam na moom itam diggam ak Cheikh Mouhamadul Fadil ba am na ci leeru Cheikh Mouhamadul Fadil koo xam ne ma Massamba Diop la ko duppee kon loolu diggante bu màgg la boo xam ne moom la comité d'organisation bi ak njaboot gi ci digalul kilifa yi digalul Cheikh Abul Baraka kilifteefug Cheikh Mouhamadul Bachir waaye ci digalul Cheikh Abdoul Fatah mi nga xam ne moo yor liggéey bi jàpp ne nañ ko doxale noonu di ñaan ñu teew ko at yu bari lool te ànd ak jàmm ak salaam ci barkeb Cheikh Ahmadul Xadim radiyallahu anhu ci barkeb Cheikh Mahamadul Fadil Cheikh borom bàyyi ko fi te may ko wér lool ak Cheikh Abul Baraka ak mboolem njabootu Cheikh Ahmadul Xadim ak mboolem njabootu lislaam yi wasalaamaaleykum wa rahmatullah